Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji ndongali Mbay Juuf mo don fasal ak cantam diko jëmele ci sun borom bi subhanahu wa taala mom mi nga xamni moy ki ñu bind mom ñu ñu ken fekku ci mom mi nga xamanteni moy sabab sunug yëngu ak sunu dal moom mi nga xamante ni moo ñu def ay nit te bu ko sooboon mu def ñu leneen lu doonul ay nit waaye moom mi nga xamante ni moo ñu def ay jullit te bu ko sooboon it mu demee neneen lu noonu mel ko ak cant lool moom jëll jàllalu rab moom mi nga xamante nii kat yépp ñu lim rek lu ko ci sooban du am te dara du ko ci fekk amel ak cant Muhammad ibnu Abdullah moom mi nga xamante ni moom la suñu borom subhaanahu wa taala diine islaam ci moom muy rogalaat tey bañ mën cee jot ba mën cee jariñu ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala gën ko dotti ay leer waaye gën ñoo taas ci barkem amel ak cant Mawlaana Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moom mi nga xam ne it diine jooju di diine islaam bay na ci waar woo xamante nii de amaana suñu borom subhaanahu wa ñi ci bay bari na lool waaye suñu borom sedd na ko ci lu takk ko takk mu bay ko ci waaye loola doon loo xamante nii loolu laat la bañ ba jariñu ca amel ko ak cant moom Mawlaana Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala gën dotti ay leer ci moom waaye tax suñ ci barkeem boo loolu wéyee ñu amal ak cant sunu sang Cheikh Ahmadou Mbakke Maawul Hayaat moom mi nga xamante ni loolu lépp nga xamante ni wax nañ ko rek tey bu ñu demee ba xam cafkali ci moom la ko suñu borom bi subhaanahu wa taala jaarale moom Cheikh Ahmadou bañ ko xamee léegi de mi ngi bëgg a def fukki at ak juróom-ñaar. lañu jaayante ak moom waaye lu jiitu ñaari at ci ginnaaw xam nañ ko kon de suñu xamee moom mi ngi bëgg a def fukki at ak juróom-ñeent di ko xam ne bañ ko xameeg léegi dara loo xamante ni rek soppeeku na ci kàddoom wala ci doxinam amul amal nañ ko ak cant moom nga xam ne kera bañ ak moom ci lañu xamal nan la ab julit war mel lan mooy melokaanu julit moom de mooy ki nga xamante ni mooy ki nga xamante ni loolu bis bu ñu ko jaayanteek moom loolu de bokk na ci kàddu yi nga xamante ni moom la njëkk a tàbbal ci suñu nopp waaye daal ñu xamal ne ab jullit dafa war a xam diineem ab jullit dafa war a xam ay farataam ab jullit dafa war a xam ay sunnaam dal di ñu booleek rakki boppam kooku mooy ki nga xamante ni moo ñu jàngal fiq li tàmbalee ci tafsiru shixaar jàpp ci jawxaaru nafis bi jeex ñu tux nekkati benen beneen barab ci lañ soobo ci yenen téré ma nga xamanteni tay wax deug non ñu ko waxe rek bu ñu amee luñ dem ba di yek yëg ñun ñi dañ ne wara doxé ab jullit dañ ne wara doxé ci jëm joju da ko suñu borom subhanahu wa taala jaaral Cheikh ahmad waye cant gu gep ñu amaat geneen cant gu nekkat ci biir cant yi muy fiñu ñu dëkk xam ne mooy suñ cosaan fa lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màgge suñ borom suñ borom bi subhaanahu wa dogal nag sang bi valoriser ko ci ci ci ci lépp rek ci saaxir ak baatin ndax kat dëkk boobu nga xam ne ci lañ juddoo sang boobu di Cheikh Ahmadou Mbacké Maal mooy ki nga xam ne moo fa taxawal njëkk taxawal jumaa moo fa tabax jumaa tabaxal ñu fa daara def tàmbali fa poste de santé daal di fa taxawal beneen institut islamique kon kooku amal nañ ko ak cant goo xamante ni am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem ndax yooyu ñu lim lépp rek amaana ci ñun la waram ñu ñëfa juddoo waaye ñu ñëfa dëkk waaye suñu borom na mënuñu ko waaye ci moom mooy ak dëkk boo xam ne lu gàtt gàtt dund na ñetti téeméeri at wala ñeenti téeméeri at ñu dem ba jëmm ñëw taxawal fi jumaa joo xam ne dana tax ñu man fay joxe bisu àjjuma ah kooku wax dëgg fa yàlla amal nañ ko ak cant ci jëf jooju dañ ko ci amal ak cant cant goo xam ne am na fu mu amul fu mu waaye amalaat ak cant ci jàngal gi ñu jàngal àddina xamal gim ñu xamal adina xamal ni la ab julit di war di doxé ni la ab julit di war di waxé ni la ab julit war di comporté wo ci lepp waye ñu amulat ko cantaat cantaat si bir cant ñun de dañ daan dégg maulana Cheikh Ahmad Bamba Khadim rasoul ci am njàngale muy wax né julit bi sa yu xëyee warna jangalum gatt gatt sax ñetti isib lolou dañ ko dun dégg waye ñu yaakar ne lolou ñun mom bañ koy wax xana ñun taxut taxut ñu jup waaye tey sang boobu tàggat ñu dem ba tey ba ñu dem tey boo xuma la ñett waaye ñu mën a xëy di jàng juróomi isib te du yàq dara ci li ñu war a def ci suñu ci suñu tool yi ñu war a xëy dem wala suñu dara du ko yàq waaye ak lu mel ni xasida yi mel ni ay nuuru daare ni ak nga xam ne diiwaan yi xam ne yooyu yëpp dañ doon yaakaar ne ñun lii moom daa am ñu ñu ñu ko beral waaye ñu bokkuñ ci yooyu tey ñu dem ba di ci di di di di di ko durus durus boo boo xam ne buñ koy def suñ xol su dañuy day am dañuy yëg dañuy yëg yëg nga xamante ni dañ xam ne lii wax dëgg fa maanaam am na fu mënuñu koo exprimer daal ci làmmiñ ñi di ko wax yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla ci sang boobu mooy ki nga xamante ni mooy ki ñu ci ñaan nàmpatal mooy ki ñu ci teete ba ba ba tey ji kon amel nañ ko ak cant cant googu nag lañu nañ ko fësal ndax ku ne xam ne ne moom kat saa yu weer wii ñu toll ci weeru koor dem ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar am na cant goo xam ne da ciy defal cant googu nag ci lañ jóge ñu nit amel ko ak cant goo xamante ni dañu koy jaarale ci moom ndax kat suñu borom mooy ki ñu bind mooy moom mooy ki ñu kàttanal waaye tawfeex yooyu nga xamante ni moom la suñu borom def ci ñun yooyu yëpp ñu nuñ ko limee ba jàll ki ñu ko xamal nag doon loo xam ne dañu ko war a dund waruñoo doon ku yaafus dañu war xam kan mooy suñu borom di jëfe am digalam di bàyyi ay teram ci sang bii la ko suñu borom bi subhaanahu wa taala jaarale mooy ki nga xam ne mooy ki ci nàmputal kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom bi subhaanahu wa a guddal fanam wéral ay cëram sàmm ko te lépp loo xamante ni am na yéene bay ko ci toolam lislaam suñu borom subhaanahu wa taala defal ko ci ku mës defal defal ko ci lu mës defal kenn waaye lépp rek ñu ànd ko moom suñu ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala saxal ci suñu ànd ba faw ba faw faw ngay ñaan ci barke weeru tëdd wi ñu nekk barke alquranul karim barke sang ba ca Medina ñu koy ñaan suñu borom bi subhanahu wa yàlla na ko def assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu لخير إلهي ولربي قول انتهى